Ah, mbokk yi man tey jii sama kàddu dama ko bëgg aj ci ñaari mbir benn bi ci njëkk mi ngi jëm ci wàllu principe yi beneen bi ci des man ngi ko aj ci conformité li ñuy def ak disposition réglementaire ak législative yi nga xamee ni moo ŋànk réew mi principe yi moo di am réew pour ñu wax ni démocratie dafa am dafay laaj ñi nga xamee ni dañuy wut suffrage yu yi mën a dem ci ay jamono ñu natt leen seen capacité ak seen man-man bu jamono jooju jeexee ñu delluwaat ci askan wa mu seet ndax ñoom li ñu def baax na am déet tey jii bu ñuy wax ni dañuy dàq ay élection quel que soit cadre bi ñu ko mën a indi ak justification bi ñu mën a indi il n'en demeure pas moins que ni situation bu demee noonu mooy perturber processus démocratique ba pare di nangu ci loxo citoyen bi capacité bi mu am pour nat politique yi ñuy def ci turam ak ci batam lolu motax tax mënuma and ci rapport ak fu mu ci mën di question bi li rek la monsieur le ministre moy que ni bañuy wax opposition bi ñu bëgg am ay nit yo xamé ni ay jaambur lañu ñu saytu élection dañu bëggoon politique yi ak seeni intérêt seen waaj ak seen paré ak seen ñak paré baña mëna influer ci datu élection te dëgg-dëgg su fekkente ni dañoo bëgg a jox ak yelleef ak doomu aadama yi seen cër ci réew mi lii jaadu kañ mooy ñu fexe ñun politique yi ak yéen gouvernement bi ku nekk si ñun def waru garam pare ak nga bare pare waaye bu dat ba jotee ak nu mu mënti demee la jaadu te yell mooy ñu organiser ay élections su fekkente ni bëgg nañu tudd suñu bopp démocratie. sama collègue bi ma précédé fii léegi nekkoon meeru Ndar. dengen ko mune man samay principe malheureusement dem na parce que xamna likoy xaar mune ay principe ak yoon mom xam ngeen ne nekkon na fi maire ñu yok mandam mu jël mandam ba mu jeex at ya lañ ca yok mu jël ko ba mu jeex ba sax dem di wutaat ñu gañe ko wa légui jamono joju loi bi mu wax ni muy code électoral lim ci article L 232 ak L 236 bobu anamu principe yi nga xamne mom la wax fi bobu principe bi muy wax bobu anamu gis nga buñu ñu naxante sénégalais nak il faut ñu wax ak ñom wax leen deug wax leen nit ñi wax ci souf di wax ci kaw parce que aussi mëno am ay principe il y a quelque temps

pencu ndaw réew mi ay loi lañ fi woté yo xamné da fay impacter sur la vie des populations xam nga ñew fi naan ay délégation spéciale yeneen da ñi nga xamné dañoo fal seeni conseil municipaux fal seeni maire seeni maire di leen liggéeyal mais ñoñu am nañ sañ-sañ ñi nga xamné ne ñoo leen togal ci pencu ndaw réew mi gouvernement bi indi leen dara ñu ñun kat dañoo bëgg ngeen saytu lii je pense que lolu mom moy responsabilité bëgg na bu ñu ñëwee fi ñu waxtaan ci ay principes parce que nak jàng nañ xam nañ lan mooy yoon xam nañ lan mooy xam nañ lan mooy sart nday réew mi constitution ba li nga xamante ni mooy ay loi mën nañ ci dem benn par benn article un à un donc wax dëgg yàlla bu ñu naxante